courage. Hmm. Ah, vingt 26 ans la ko def. insulté foofu. Ousmane Sonko def ko 10 ans trois dernières année yi hmm. dafa xeex dafa xeex même xeex arme non conventionnelle ak. lépp la yemale mais opposant yi 8 mois 9 mois àndul ak costume ak cravate. déedéet 9 mois 8 mois. àndul ak ak loolu. mais 12 Abdoulaye Wade bi mu fi jógee ba léegi day am groupe parlementaire. dëgg la. mais après bi ñu bàyyee Karim Wade mu toog fee parti bi réglé seen crise interne. ñii nekk député pendant cinq ans Lamine Thiam nekk quatre cinq mandats. ñii nekk ay cinq kiiwam musul nekk mais bi ñu yeggee ci suuf base bi daf leen wax ni ñi dem leen ngeen réglé seen problème Khalifa Sall ba mu réglé wul problème moom depuis depuis après mu jóge kaso taxaw Sénégal chaque fois mu dem ci ay coalition du évoluer boppam hmm. ñëwaat ci ay coalition defaat après këram tas na. waaw Ousmane Sonko s'est bonifié bi mu jógee yeewu ñëpp ne ko. gars yi nga andal ci maire yi moo parti bi pouvoir gars yi nga andal législatif moom bi mu ñëwee présidentiel dafa jël 64 mois en avance 64 jours en avance yi yu jaarul yoon yu injuste mhm. parce que waaw dem wër département yëpp ay ay ay département am la teg dëgg la c'est-à-dire li mu li mu ba pare ne parce que corrigé na moom expérience bi am avec les opposants mhm. léegi nag gars yi àndoon ak moom dañu war ci seen biir si dans la dignité de l'opposant et dans la dans le courage de l'opposant loolu aussi dañ ci war a corriger waale mhm. parce que da ngay xool lan moo tas PS mooy depuis ñu def douze ans Benno Bokk Yaakaar yi même teg yi rek ñoo nekk ci institution yi ak seen i booy mais PDS aussi benn moment ku jege Karim mm, mm. ku jegewul Karim ñu génnee ku d'accord ñu d'accord beneen bi Idriss Seck mosul évaluer réew mi ah, ku si nekk ñu jóge fa APR gëj nañu def bureau politique gëj nañu wii keneen jóge fi Pastef jàng ci ànd ak ay opposants di séddale mhm. gagné falu daan ne léegi Pastef mooy jël ay JP départemental am ko bi ñuy nommé quarante cinq chargés de mission yi mhm. dañoo tànn booy yi nga xam waruñu nekk député ñu ah, institutionnellement ñu casé leen PCA yi ñu casé gars yi institutionnellement mhm. du parti mhm. installé seen i département du parti pour leur faire des leaders départementaux nanguwul ànd allié bu ne da toog xaar allié yi ñeme seey la dugal ci national léegi ñii ñoo war a dem jàngat ci loolu bi ñuy ñëwee élection ba jàll gars yi dañu war a accepter lenn mooy fal nañu Ousmane Sonko xaar nañu nañu xaar ba conseil constitutionnel pare seeni mandataire ñoo oh wax leen mais dafa am benn affaire ñoom bu ñuy fo bu ñuy bëgg mooy ñoom Ousmane benn côté bu mu leen di xeet dañ ko war a bañ mooy dañuy wan ni sun ko ñun dañuy rafetal dañuy wan sénégalais yi ne dañuy naay sal dañuy def diplomatie Ousmane eh, Sonko moom dafa constant kee Idrissa dañoo war a génn te dëkk bi génn dëkk bi non ah. déggul ma la ah, moom dafa déggul ma dafa ne sama njaboot ñu leen di laal lui il protège sa famille politique mm-hmm. il protège ses journalistes il protège ses chroniqueurs mm. il protège ses amis mm-hmm. il protège aussi ses partenaires même si tu ci parti Jambouri, mm-hmm. sax fait ko def avec ak dom, dafa fait protéger mm-hmm. am ak fayda am ba bi pouvoir au léegi utiliser nag l' institution pour régler ci ay problème am mhm. léegi les opposants Ousmane Sonko moo taxawoon ci biti naan leen institution yi ngeen utiliser contre l' état contre mhm. nit ñi mhm. police bi ngeen utiliser gendarme bi ngeen utiliser yéen a bëgg rey léegi opposants yi des fii mais néew néew nañu yeewi wàllu ñaata lañu euh, yeewi askan bi groupe la woon rek d' opposants qu' est ce qui les empêche les trente cinq les trente yi ci wóor Ousmane dajee ñu tëju ñoom it waaw séminaire xam ni dans les cinq ans. mais qu'est-ce qui que tu sais que avec les résultats là. mais dafa leen war parlementaire moi, am assemblée nationale. mais xam nga tey mën nga am benn groupe gis Ousmane. xam nga tey mm. non. Ah. paire qui a seize députés. Mm. amul amul groupe parlementaire mais xam nga tey ñoom am nañu benn avantage. pour avoir un groupe parlementaire il faut avoir 17 députés. mais loolu yomb na xam nga lu tax. xam nga moo tax suñu regroupé woon. mais xam nga tey dans les doon Ousmane dafa ne man très tôt. de ku bëgg a ñëw. Pastef nga ñëw mais dew coalition. dëgg la. léegi dëggal boppam parce que électorat bi moom ak jomaay la mm-hmm. nit ñi moom la wax ni ni moom lu mu joxoñ mu am lu mu am mu am mm-hmm. léegi nag mu ne dama koy capitaliser ak sama biir njaboot mm-hmm. léegi nag moom pare na ci yeew yi pare na ci moom pare na ci ci ci ci ci ci jomaay président bi léegi mu ngi ci teg Pastef ngir ngir pour dérouler mhm. comme nous avons parti socialiste pendant des années nous avons eu parti Sénégal pendant des années parce que aussi ils veulent exister et le groupe de l'opposition le consensus démocratie ak liberté ak dictature ñetti yi tax ñu faté sen bop légui députés ñoo ay ay chairman nous avons PDS ay ki du wax ak wax groupe bi loolu moom la ñu war a def péju gis nga les trente cinq même nañ nekk benn groupe rek. tout ne on n'a pas besoin sax ñuy